di rafetlu act bi live social def euh, di wax ni acte bi euh, wuyu na tur bi muy muy social bi euh, ku xam koor xam ni weer wu bari frais la weer wu bëri ay ay dépense la donc suñu xalaatee ni nañ ñëw def acte ci koñ bi commencé ci joxe ay ndogu incha allah donc loolu lu ñu rafet la loolu di leen ñaanal lépp lu ñu namm ci lu baax yàlla na yàlla mottali ko. waa di rafetlu également accompagnement bi ñu accompagner ASC Pont bi nga xam ne moom laa jiite. def nañ ko ci saison bi ñu génn te incha allah rabi programme lañ tëral pour def ko ci at yi di ñëw boole ko ak ay tëgay événementiel yu nga xam ni lépp lu ci ruusee euh, ñu ngi koy commencé ci koñ bi mais programme nañ ci post santé bu Tabangoy programme nañ ci pouponnière bu Bongré programme nañ ci ah, œuvre sociale yu nga xam dina lal euh, laaw Kaolack yëpp ba génn même région wu Kaolack voire le Sénégal tout entier donc di leen ñaanal réussite. li ñu defee mooy dañu togg ay reer boole ci boisson dem yóbbu ko ci kër yi ak ci daara yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi ak jàkka yi. bi mooy première édition. incha allahu rabbi ren lañ ko démarré te fas yéene nañ at mu jot euh, démarré nañ par ay reer mais déwén dinañ xalaat leneen lu nga xam dina accompagner reer bi incha allahu rabbi ASC warul yam rek ci football. ASC dafa war a nekk structure bu nga xam ne day ne ci quartier bi lépp lu nga xam ne waa quartier bi ña nga ca ASC bu dugal ci loxoom muy social muy développement muy njàngum xale yi loolu ASC point am na ci programme accompagner xale yi incha rab yi ci vacances yi ñu jëm mais également euh, euh, bëgg nañ également dugal suñu loxo ci reboisement wu quartier bi parce que gis nañ ni Kaolack tàng na te loolu ASC war nañ ci bay seen waar donc ñi ngi ñaax ASC ñu roy ci bi ci wàllu social mais également wàllu éducation ak wàllu culture. di sant borom kër gii di ko ñaanal yàlla yokk ay leeramte te tax ñu ci barkeem ndax kër gi daa bokk ci ci koñ bi ci kër yi nga xam ne nii day honoré koñ bi moo waral waa life social bi ñu xalaatee seen social bu rëy boobu nga xam ni doomi koñ bi lañ génn dem tukki ji dem wuti ji yàlla defal leen ñu mos tuuti ñu ne dañuy ñëw fàttaliku waa koñ bi ànd kook ASC pont bi ñëw ne duñ fàtte waa po bi duñ fàtte AS duñ fàtte koñ koñ bi kenn dañuy fexe ba lépp luñ man mënal ko waa koñ bi te nag man man say bokk man man say bokk say bokki dëkkandoo moo tax ñu def ay ndogu tey ànd koog los ak bokk yi nga xam ne ànd yuusu ànd kook waa kër koñ bi yëpp ñëpp ku lim juum ndax li tax ngay juum mooy da nga dul matal waaye li ñu jublu ci lii rek xamal ne mooy kër gi kër la goo xam ne ci biir koñ bi day honoré koñ bi ndax borom kër gi ci siraatal mustaqim rek ci la teg woon ba pare teg ci njaboot gi xale yi nag bu ñu jëmee tukki yàlla dogal loolu isti maanaam kii leen gindi leen fañ nekk ñu bokk ci liñ doon bàyyi xel mooy borom kër gi lam doon jaayanteeg ñoom ay ak seen waajur ñoom ñu gis ko bàyyi ko xel moo tax social ne seen xel ñu ne ñoo def social te duñ duñ duñ jaar nag ci ASC po bi ndax boo bëggee def social ci koñ dangay jaar ci ñu fa dëkk te boo tuddee ASC tudd nga ñu fa dëkk ñëpp kon waa waa life social ñoo ngi nuyoo bu baax di sant di wax ni lii commencement la rek dañ ko def ren bëgg ko chaque ñu gën ko mu gën a yaatu gën a a yaatu gën a gën loolu rek lañ ci jublu. affaire bi dañ ko bëgg a diversifier tey dem nañ ci daara yi ak ci jàkka yi beneen yoon mën nañ dem ci hôpital yi dem yi dem feneen ak feneen chaque année rek prison yeeg fépp rek mën nañ fa dem quoi dañ koy diversifier chaque année rek ak thème bi ak nu ko gars yi xalaatee xam-xam borom nekk suñu ginnaaw nga xam ne ñoo ñuy xalaatal li ñuy wax defee nii ñu defee nii suñu waxee rek après ñun ñu xam li koy defee ba. live social mën nañ wax ni. label la mais dafa différent ak yeneen label yi quoi. Hmm. label la boo xam ne ñu organiser ay live music suñ dajalee nit ñi ñu kontaan bég artistes yi woy nit ñi kontaan bég suñ bégee ba pare après nag live bi jeexee jublu nag ci li ëpp importance mais le problème de tous les jours hmm. mooy social bi quoi bu pare bu defee live social ba pare chaque show dafay am thème su show bi jeexee ñu jël thème bi ànd ak ñi war a àndal suñu représentant yi yor affaire social beeg yooyu ku ci mel ni Youssou Boubacar ak ñom Talla ñu and ak ñom dum def social chaque fois rek dañuy am benn thème bo xamni mom lañu jël mais live social da bu ñu la ko bëggé tënkal benn label la bo xamni day organiser ay live show bu paré li ci def ay social ñan ñoko ñan ñoko nank nànk waaw ñi nga xamni ñoy membre yi ñi ko nank dal ay doomu Kaolack la initialement nak niñ ko commencé xam xalaat bi ñu jógee ñi ngi nekkon extérieur ñun ay doomu Kaolack ñu nekk extérieur ñoo doon waxtaan ñu sét nan lañuy def ba jappalé suñu dëkk dafa am ay borom xam-xam yu mag yu wax ni pour nga jàppale sa dëkk wala nga liggéey ci dara da ngay seet li nga xam ne yow fa nga mënee fi nga excellent fi nga xam ne yow yaay le meilleur dans la classe mhm. nga defee foofu noonu quoi te ñun showbiz lañ xam ay artistes lañ ay ex artistes lañ ay rappeur ñi ay peintre ñi ay comédien lépp am na fi ñu ne kon léegi nañ def label bi bu ñëwee ñu jàppale artiste Kaolack waay mhm. mais daal originalement ñu ngi ko fondé aux États-Unis mhm. Je suis ay membres de l'Europe, Europe ak euh, Asie du Sud. ñu ñëw Kaolack commencé fii suñu événement di dooleel jàppale artistes Kaolack waaye ak def social bi ci hôpital yi ci e yi ak ci tout ce qui est social.